dëgg la d'accord Sonko dellu si si yooyu ah. Bachir kon daal nangu la yàlla def nangu nañ ko Kër Yërmande ah, nangu nañ ko nangu nañ ko <laughs> devenue la maison de l'horreur waaw Kër Yërmande Yërmande de très rapidement ku si nekk dama lay jox deux minutes pour nga pour nga pour nga wax ma bon man man Doudou d'abord un dama bokk si ñi nga xam ne xamuñu woon ni soxna si elle avait une pouponnière ah man très sincèrement non je je la suis pas tellement. Mm-hmm. xaw ma woon ni am na ku ko ñaar. moo tax am benn grand Lamine Diatta. Euh, journaliste journaliste waaw mu tout le monde savait ma ko non grand bul wax tout le monde savait. Mm-hmm. man je ne savais pas mosuma woon xam ni sax ni soxna si am na ko ñaar. Mm-hmm. parce que man soxna si xamoon naa ko si yeneen activité amoon na ay temps amoon na fi école privée de santé. mu amoon coow. ñu tëj école bi. amoon na ay temps mu ubbi woon fi benn rajo FM santé. Mm. yéen a ngi koy fàttaliku. di recruter xaw ma genre affaire dafa waaw recruter fii affaire yooyu mel ni benn genre. call service affaire yooyu mu amoon problème. temps yee si ginnaaw dégg nañ ko fi mu woote fi naan groupe whatsapp boo xam ne bii nii mhm. dee duudu daa bëgg ñaareel ak jaañ bëgg ñaareel ñu dugal leen foofu <laughs> boole leen ak yooyu noonu déggoon ngeen si problème bi mhm. donc man loolu mooy kii maintenant man damay wax toujours quand problème se mhm. il nous faut regarder à partir du problème, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement mhm. mhm. et aller de l'avant. C'est ça. Parce que pour moi, le débat, est faut le nec. Doit-on s'indigner seulement, ok, d'accord, mais ni de ni d'homme, il beaucoup faux. Quelle est leur responsabilité Ni seetaan ni am na pouponnière les conditions d'hygiène et de santé et trucs sont respectés mm-hmm. quelle est responsabilité mm-hmm. ñu toog nag ba jéeye am mm-hmm. ñu bëgg a woote wax yuuxu ñu et cetera nit ñi bëgg a yuuxu waaw dafa waroon am agrément lii lii lii lii lii am na sax ñu ma siy tooñ man dugg naa sama compte Twitter ne leen mais ña demoon Sweet Beauté amuñu agrément ñooñu tamit xanaa xanaa boobu noonu da ngeen ne woon pourtant c'est normal kon nag dëkk bi des fois aussi loolu mooy suñu problème on a des indignations sélectives on doit s'indigner de tout mais des fois dañuy tànn lu ñu arrangé lu ñu arrangé mais maintenant moom en tant que tel mm-hmm. peut-être je pense et c'est mon intime conviction qu'elle est partie d'une bonne intention mais nag nit da ngay def loo xam ne c'est à taille ay Aysatu munoo dundal àdduna bi yëpp mm-hmm. ndaxte loolu am na sax mm-hmm. misaal ci diine yenent bi woote woon yàlla ne ko may ma ma dundal àdduna bi yëpp yàlla ne na ko mënoo ko mënul nekk mu ne ko may ma lan la ko si teg mu ne ko may naa la at ngay togg di teg